salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen ziyaara bu baax a baax a baax xam naa kàddu yi ñuy yëkkati nag ay kàddu la yoo xam ne eh, ay kàddu yu leeral la yu ñuy teg ci eh, kaw kàddu yi nga xam ne fukki minit ak ñaar yi nga xam ne moom la eh, kooku ñuy wax docteur loo def ci wàllu ay leeral xëy na am jàngale. Euh, mu jëm ci wàllu bidaa ak yi nga xam ne moom lañ xewal ci diine yoo xam ne euh, dafa juuyoo ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ci loolu nag ñu jàpp ne maanaam lamu ca wax ci fukki minute yooyu am na ay lëntal yu bari yoo xam ne nekk na ci biir loolu nag lañ bëgg a yëkkati sunu kàddu ngir leeral loola waaw ngir leeral loola euh, bari na timit ay place wala ay wax yo xamne ne ci bir ñun ñepp ñoko andando manam maanaam ànd ñun ñepp ak wax la jo xamne du wax ju ñuy jàngale manam du wax ju bees muy tasawuf yek kep nit ku bax rek d'accord nga ci loolu d'accord nga ci ne am teug akum fecc loola ak diine dañoo juuyo amul menn mag yitam mo xamne ne fay digle loola wala daf koo soññee wala daf daf caa ànd walla danga nga mën a dem ci mbindam gis ne loola daf caa nekk wala yu mel noonu loola su fekkee qad saadahum iblisu fii fi xaaxihi bal baaduhum qad saara min afraaxihi lam ci jublu mooy ñi nga xam ne dañuy e, daganal am pecc akum tëgg ak e, caaxaan yu mel noonu dañ koo boole ci diine ji ñooñu moom iblis rëbb na leen rëbb na leen ba jàpp leen eh, bal sax mën nañoo wax ne ñenn ci ñoom bokk nañ ci cuuju iblis yi comme ni comme ni ko borom eh, way bi waxee su fekkee ne lam ci jublu rek mooy tëgg yim njëkkoon a wax ak fecc yeeg caaxaan yi nga xam ne moom ñépp képp ku bëgg lu baax rek tey nit te sam xel ñor loola danga ko daw su fekkee ne loolu la ci jublu amaa nag loola daf koo tegoon mu nekk laytaay boo xam ne pour dugg ci biir ndax dépassé ne waxatul ci wàllu tëggam fecc ak yu mel noonu waaye directement ba mu ca paree lim dugg mooy zikkar yaag naafilaak nangam ak nangam léegi yooyu yëpp ci fiiri iblis yi la ko boole ci fiiri iblis la ko boole léegi nag départ maanaam démarche bi nga xam ne jël na ko ci wax ji ba leeral ca ya nga xam ne bëggoon na caa yegg te li ko ci mënoon yeggale mooy dépare ci yi nga xam ne ñun ñëpp d'accord nañ ko kooku am lëntal lay doon maanaam dépare ci li ñëpp d'accord ngir dem ci la nga xam ne da nga koo wuuteeg nit ñi loola am lëntal lay tudd eh, wax ji nag mi ngi ko tàmbalee ci eh, ay bayit yoo xam ne xaafiz eh, al xakam yi moom moo ko moom moo ko bind boroom sullamul wusul maanaam xëy na mën nañoo wax ne kon jotaay boobu wala wax jooju mi ngi sosoo mi ngi mi ngi bokk ci njàngale bu doon jàngale téere boobu xëy na ca biir njàngale ma wala ca biir chara ya mi chara bayit ya ci la duggaale waxaale soxlaam si mu bëggoon a wax e, kooka muy jàngale ay mbiram itam di di wax ay bayitam ñoom ñaar ñoo yem benn madhab la waaw ñoo bokk yi ñuy tere ak yañ wuuteeg nit ñi léegi nag yooya la la la borom téere ba di boole di wax ne ñooña di def loola maanaam ci xabru yaag di di yëkkati ay xabroog di taal ay làmp ci ci ci ci ci xabru yeeg ki yeeg yu mel noonu nag mu ne ñooñu qad saadahum iblisu fi fixaaxihi bal baaduhum qad saara min afraaxihi yadcu ila cibaadati al awthaani bilmaali wannafsi wa bil lisaani nga gis ne même borom téere ba ci boppam moom euh, fa mu jëme mbir yi fa mu jëme mbi maanaam fa mu jëmee wax ji ci boppam foofu dafa mot a moytu maanaam dem ba boole ñenn ci ñi nga xam ne ay jullit lañu xëy na da ngaa ñoom ci benn pas-pas da ngaa wuuteeg ñoom ci benn mbir da ngaa wuuteeg ñoom ci benn sujet wala dara euh, est-ce que xabru wares na ko jël yëkkati ko ci kaw ba mu ba mu ba xaw a kawe tuuti est-ce que bi xabru bi maanaam warees na faa taali làmp euh, ak yu mel noonu est-ce que warees na tagg yonent bi ba àgg ci fu ñu lu ñuy wax itra euh, yooyu nga xam ne nit ñi dañ cee wuute nga jàpp ne loola ñu def noonu wuuteeg sunna la wuuteeg sunna la euh, ak yeneen ak yeneen léegi nag loola ci boppam loola ci boppam ak ak di dem di di tawassul ci xabru yi ak di ñaan dem sax bay ñaan borom xabru bi dama bëgg nga may ma nangam ak nangam nangam e, legi lola lola firuk iblis la mom lola iblis la legi nak waye nak dépasser lola ba wax ne ñenn ci ñom sax dañu bok ci membre iblis yi yeddu maanaam la affaire bi di delu damir bi day delu ci ci eh, baaduhum delluwul ci du caagene iblis huwa alladi yad'u ila ibad awthan waaye borom téere bi li mu bëgg a wax mooy baaduhum ñenn ci nit ñooñu ñenn ñooñu ñenn ci ñoom yaddu ila ibadati awthaan yi ñoom ñooy woote ci jaamu xërëm ci jaamu xërëm est-ce que am na ci jullit ñi ñoo xam ne dañuy woote ci jaamu xërëm te Ahmed Lo bayit yi la doon saraade maanaam léegi laaj bi mooy est-ce que am na ci jullit ñi jullit ñoo xam ne dañoo àgg ci riir ak ci e, bokk ak seytaane dem bay woote ci jaamu ay xiram yad'u ila ibadati l awthaani jël nag ay moyens yu yi ëpp solo di di ko di ko wootee ci jaamu ci jaamu ay xiram mooy bil maali ci alal alal la ñuy jël eh, di ko utiliser pour woote ci jaamu xërëm eh, wan nafsi ak seeni bakkan wal lisaani ak làmmiñ kon am na ci nit ñi li boroom téere ba jàpp mooy am na ci nit ñi ñoo xam ne eh, moo xam dañuy jël ay kii di ko rendi ci xabru yeeg dañuy def nangam ak nangam waaye yooyu yëpp daal ñoom dañuy woote ci jaamu xërëm ñoom jullit ñooñu te dañuy utiliser seen alal ca woote booba utiliser seen bakkan ca woote booba utiliser seeni làmmiñ ca woote booba e, kooka maanaam jëmmi bayit yooyu mu wax noonu sax lu maxallu nazar la maanaam foo wax ne warees na faa taxaw ñu décortiquer kii li mu wax est-ce que yoon la wala déet est-ce que mbir mi àgg na foofu gaa yi di woote ci jaamu xërëm wala déet loolu problème la bayit yooye nag ci la doon moom la doon firi bayiti kooka la doon firi bu yemoon ci firi bayit yooye rek moom sax loola xaw naa tane waaye nag dafay départ ci loolu nag loolu muntalaq la rek daf caa dëgg pour départ jëm ci tudd ay mbir yoo xam ne moom dafa jàpp loola ay bidaa la loola ay bidaa la waxul sax nit ñi dañ cee wuute kii jàpp naag wala dañ cee wuute man ak ñoom wala nangam déedéet maanaam yooye ay biddaale yoo xam ne bokkul ci diine ji te képp ku ko def da nga cee am ay bàkkaar nga cee jële ay bàkkaar nga cee jële loolu nag am lëntal la meneen amoon ay nit ñooy daje di fecc di tëgg ñu ne ñooñu dañoo nekk maanaam way yi way yi diine la way yi diine ñuy dëgg di fecc mooy yàlla nga di ko jaamu yàlla nag foofu su mbir ma àggee foofu kooku musiba ngay am moo tax mu ne qad saadahum iblisu fi fixaaxihi bal baaduhum qad saara min afraaxihi maanaam yooyu nga xam ne wax na ko ma wala bokk boroom téere ba wax ko yooye yu ñëpp xam la maanaam te borom téere bi waxul woon ay tëgg ki fecc ak yooyu maanaam mi ngi ci xabru yaag ca dem bi ñuy dem di ziare xabru yeeg di fa taal ay kiyew ak ci yooyu yu mel noonu ci buntu boobal ci la waxee ne qad saadahum iblisu fi fexe ala ayati xaal ñoom ñaar benn mbir bi la maanaam alam la min alaami salafiya bu ñuy wax xaafid al xakam yi moo bind téere boobu ñuy wax sullamul wusul ci la bayit yi nekk ci la bay di nekk e jëmmi tëgg ak i fecc yoo xam ne nit ki da koy def loola waxuma la juuyoog ay tasawuf ak ay kii ak yooyu dafa juuyoog diine dafa juuyoo ak diine kon kooku ñépp ñoo ànd ci jéem ko soreel diine waxuma la ak ay tasawuf ak yooyu te amul itam menn mag mu digle loolu amul menn mag mu digle loolu kon loola bu ko waxee daf koy wax ala lisaani jamii ahli sunnati wal jamaa ala lay waxee loolu maanaam ci làmmiñu xeet wi yépp ñoo booloo d'accord ci lii mu wax waaw ci lu wér-wér ñooñu nag ñooñu qad saadahum iblisu fi fiqaahihi loolu moom xaqiqatan loolu moom moo am moo di ne ñooñu iblis daf leen a rëbb ba ne leen nuus jàpp leen ba dugal leen ci ak fiiram ga ñenn sax ca ñooña bal baaduhum qad saara min afraaxihi waaw ñuy dem ba bokk ci membre iblis yi sax nga xam ne seen yitte yépp mooy ay caaxaan la ñuy défendre waaw seen yitte yépp mooy ay caaxaan la ñuy défendre lii moom ñun ñépp ñoo ko booloo ànd d' accord ci loolu waaye daf caa yemul iblis rëbb na leen ba jàpp leen ci fiir yu bari yi nga xam ne da koy samp fiir yi du genn du ñaar fenn fu nekk ak ñenn ñu nekk iblis sampal na leen fiir boo xam ne bu ñu wattuwul ca la ñuy tàbbi moo tax jullit bi lu dem mukk ba naagu fu mu mën a toll fu ne fu mën a toll fu nekk dafa war a tiit ci boppam ak li ci kanam di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu saxal ko ci diine alimaam ahmad ibn hanbal da doon wax ne su ma demoon ba saa benn tànk dugg àjjana du tax ma naago ne danaa dugg àjjana li fekk bi ci des fekk si ko kon kooku kenn mënu koo nax benn tànk bi dem na ba dugg àjjana waaye beneen bi ak seegut nee na balaa sama xel dal rek ñaari tànk yëpp day ñëw ba noppi léegi-léeg nga gis ne ku nekk fi jaamul yàlla deful dara daan ne nun moom ci waa àjjana lan bokk yaa mucc nan lu tax mu jeex euh, teg ci wax ji itam du ñu ñëw ci lim mujje waaye lim ci teg lépp ñun ñëpp ci d'accord loolu tamit da ko wax ci làmmiñu jullit ñëpp moo xam nag lañ ca jublu loolu beneen mbir la waaye jëmmi wax ji ci boppam moo nekk loo xam ne xaqiqa mustaraka la maanaam mbir la moo xam ne dëgg la ju ñëpp bokk dëgg la ju ñëpp bokk ni ko ñëpp bokke mooy Euh, jullit bi warul am benn yoon boo xam ne daf koy naagu waaw warul am benn yoon boo xam ne daf koy naagu saa su nekk dafay jàpp ne yàqule weesuwul ci moom njuumte weesuwul ci moom maanaam euh, lii mu jàpp jàpp ne moom dafa tegu ci yoon mën naa am ci ndëngte la nekk jullit bi saa su nekk dafa war a am njort googu di jéem a la boppam nag di ko lijjanti maanaam di di di di di xool moom ci li mu nekk lana di muhaasaba boppam saa su nekk loola ñëpp d'accord nañ ci loolu ñëpp d'accord nañ ci loolu eh, moo xam nag xëy na lam ci jublu li tax ma xam ne lim ci jublu jubluwu ci boppam moom maanaam jëmmi boppam moom naa ko ba pare ak képp ku topp ci moom ndax ñoom gëm nañ ne alfirqatu naajiya buñ koy wax ñi nga xam ne dañoo topp ahlu sunnati wal te aw ci aw yoon wu leer buñ koy wax ñoom a tax kon ñoom amuñu problème mu noonu ñoom dañoo jubak dañoo dëng ñoom moom ñi ngi ci ala hudan min rabbihim ci yoon wu leer naññ la ñu nekk waaw te bu ñuy wax ahlu sunna wal jamaa tamit ak ña nekk ca la nga xam ne Eh, la yonent ba nekkoon ak i bu ñuy wax ne daa am ñoo xam ne dañoo nekk ca la yonent bi nekkoon ak i ñoom la ñoom lañ ci jublu waaw ñoom ñooy ahlu sunnati wal jamaa dégg nga kudul ñoom ku wuuteeg ñoom ay xalaat yow yaay nitu bidaa yi comme ni ko Mourtala Gueye di waxe waaw waa bidaa waa waa nangam xubuuri yuun ak yeneen ak yeneen ñoom duñ loolu lépp ñoom ñoom ni ñu jubee dafa ëpp waaw ni ñu jubee dafa ëpp kon ñoom itam te man li ma dul seetlu mooy di seetlu ibaadu yoo xam ne dañuy jël ay tuuma di ko gàll seen bopp saa su nekk foo leen déggee ñuy wax dañuy wax comme que ñoom moom jub nañ ba pare mais ñun ñi nga xam ne ay mutasawifa lañ wala loolu la ñu bëgg a doon ñun ci boppam ñoo réer léegi ñoom ñi ngi ci ak njub gu wér a wér a ñun nag ñu yërëm ñu lool ci sànku gi ñu sànku ñun sànq gi ñu sànq xam nga ñoom kon naagu moom dépassé nañ sax naagu moom <laughs> dépassé nañ ay affaire naagoog ñoo dañoo juum ak juumu ñoog li ñu jàpp mën naa am mu tasawifa fay ñoo nekk ci dëgg ak déet noonoo ñoom dañoo wér dañoo wérle ah ñu ngi ci yoon wér ñoom ñooy ñoom ñooy waa sunna léegi naagu weesuwul nit koo xam ne ci sunna la bokk maanaam moom dafay wax ne moom min ahli na kese mais la ahlu sunna di jëfee moom jëfewu ci dara am na ñoo xam ne maanaam ñoom. du ñuy naafila du ñuy jàng alxuraan farluwuñ ci jaamu yàlla jullik mbooloo sax daf leen a tër waaye ñoom ñooy ahlu sunna rek ñooy ahlu sunna rek léegi xasbuhum ci ne ñoom dañoo jub mooy ñoom ñooy ahlu sunna waaw ñoom ñooy ahlu sunna ñoom ñooy ahlu sunna gëmuñu tariixa gëmuñu sëriñ gëmuñu dara ci loolu ci ñun jàppee ne ñoom ñi ngi ci yoon wi donte nag la mag ña daan rawante ci wàllu jaamu yàlla ak selli xol ak yu mel noonu yëpp nekkul ci ñoom ñoom xam ne ne nekkul ci ñoom mën naa am sax ñoo gën a wayu nit ñëpp waaye ñoom daal ci ahlu sunna lañ bokk ci ibaadu yi lañ bokk ñoom dañuy cëkkal dañuy guddal seen sikkim wa xalaas jeex na amul leneen bari na ñoo xam ne noonu lañ noonu lañ mel te jëmmi bokk gi ñu bokk ci ahlu sunna ci lañ jàppe ne ci lañ rawee kooku naagu na waaye yooyu yëpp moom boolewu ko cité wu ko ci mbool ci affaire bi de moom lim cité mooy ñi nga xam ne dañ ne sëñ diw lañu àndal rëcc nañ <laughs> ñooñu ñoo naagu te ñooñ sax naaguwuñu loolu mu wax noonu am lëntal la su fekkee ne dama ne ibnu taymiya laa àndal masalan sëñ ibnu taymiya laa àndal man rëcc naa wax jooju mën naa nekk dëgg kañ lay nekk dëgg su fekkee ne sëñ ibnu taymiya moomu yoon wi mu jaar xaal xàll ko yoon wu sunnawu la mu xàll ko ba pare ne ne ñépp jaar ci nañ ci jaar teg ay dalil yu wér ne fii fii mooy yoon bi léegi man kooko wóolu gi ma ko wóolu koo kay su ma jaaree ci moom su fekkee ànd naa ak moom rek te dëggu ci ànd gi ànd ak moom man rëcc naa su fekkee ne wax ji noonu la amee koo kenn ku ko tuddee naagu kon jëmmi sëñ diw laa àndal rek mucc naa loolu du naagu de na fekk ne sëñ diw jaar ci yoon ba bu fekkee sëñ diw jaarul ci yoon wa yow jéemoo xool ba xam ci yoon wi la jaar jaarul ci yoon wi est-ce que juum na jóomul yow danga nga koo jël lépp ala awahinihi loola mooy njuum tega loola mooy naagu ga te naagu sax même mu tasawifa fay dañuy tere loolu Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ci jawaahirul maani yépp ba mu jeex day wax ne taalibi Tidiane bi lépp luñ ko dig mën na koo am waaye nag bi charte mu bañ a naagu bu naagoo loolu da koy génne sax ci mbir mi ah, loolu da koy génne ci mbir mi kon jëmmi Cheikh laa àndal sax wax sëñ Tuubaa laa àndal kii lu mu mënti doon su fekkee ne yaa ngi teg sa tànk fa mag moo ma tegoon tànkam su la neexee nga ne diw laa àndal mucc naa ndax mag ma fa mu tegoon tànkam fu wér la li bon nag mooy nga ne sëñ diw laa àndal te sëñ diw lam doon def fas yéene woo cee def dara lam doon digle fas yéene woo cee jëfe dara. lam doon tere fas yéene woo ca bàyyi dara jëmmi bokk gi nga bokk ci moom rek comme yenn ibaado yi li ñuy wax jëmmi bokk gi ñu bokk ci ahlu sunna ci lañ rawee jaamuñu yàlla naafile wuñ guddi jànguñ alxuraan zikkaruñ xalaatuñ ci yàlla dara ñoo fi gën a bëgg jigéen gën fee bëgg yëfi caay-caay ak yu manti doon waaye ay ahlu sunna lañ naka noonu murit bi naka noonu tijaan bi naka noonu ko kon loolu wax ju général la moom sikk si ci am rek ci wax ji wala lëntal gi ci am mooy boole ci waa këram ci naagu geek julit beek nangam ak nangam boole ci boppam itam mën naa am moom mi ngi ci loo xam ne bu ci faatoo mën na dem safara loolu itam daf ko war a bàyyi xel baaxul pour moom nga jub dafa bëgg na nga dëng sa pas-pas na dëng jaamul keneen ku dul yàlla su ma nee am loolu moom moo ko gën mooy lu mag lan la nga xam ne bu ko nit ki defee kenn du ko jéggal bu ko faatuwaalee loola nag moo ko gënal nam la koy defalee ak fiir mooy dana fexe ba nga wutal ko aw tur wu bokkul ak bokkaale sa xel nag man caa dal nga nekk ci loolu guddi ak bëccëg di ko defaa ndor kuy woote ci tawxiid sax boo ko déggee di ko saaga wala nga di ko xas ñooñu ñooy ñi nga xam dañ fay ñëw a soppi suñ diine noonu ngay dégg euh, nag mi ngi dugg ndànk ci li nga xam ne moo ko tax a jóg waaw li nga xam ne moo ko tax a jóg te ca la bëgg a dugg mooy lan mooy. yi nga xam ne moom bokkaale la wa def maanaam moom dafa def loola bokkaale nit ñi di ko défendre am ñu koy défendre e, moom ak ñi bokk ci moom ak ñi nuroog moom la ñuy woote loolu mooy tawxiit boo xoolee ci baat yépp donc baat yi may wax nii dafa am ci biir waxam maanaam mu ne ni iblis di defee fiir ci wàllu jaamu yàlla mooy jaamu yàlla gi nga nekk def ko da day fexe ba nga wutal ko weneen tur dul bokkaale kon jaamu yàlla goog loolu ngay def noonu bokkaale la léegi day fexe ba nga wax ne loola du bokkaale wutal ko weneen tur maanaam wutal ne damay tawassul wala damay ñaan ci barke diw mi wala damay istiraasa maanaam yooyu yëpp bokkaale la ci moom wala boog daf lay yóbbu ci bokkaale comme ni mu ko bindee ci téeréem bi léegi yooye nga xam ne moom gëm na ne bokkaale la te loolu la wax ku dégg wolof xam ni muy wax maanaam daf lay wut dafay fexe iblis day fexe nga jël affaire bi wutal ko weneen tur wudul bokkaale kon moom lim gëm mooy loola ci boppam bokkaale la lu bari ci yu nekk ñun bokkaale la ci moom bu fekkee yàlla dafa sukkandiku ci xelub Ahmed Lo ñu ñëpp safar la ñëpp ndax liñ nekkee bokkaale la léegi nag iblis mooy fexe ba ñu gëm ne loola du bokkaale muy benn ñaareel ba mooy mu wax ne ñii woote ci taw xiit bu ñu ñëwee sax doo leen faale kon ñiy woote ci tawxiid mooy ñoom ak moom ak waa këram ak ñu ñu moom ak ñamu yar ñooñu lañuy woote ak di jéem a génne nit ñi di xaraamal tawassul ak ziyaare yonent bi salaa ak yeneen yeneen yu mel noonu yoo xam ne yooyu dañ koy dugal ci ay bidaa ak ay bokkaale ak ay jaamu xiram ak dem di ziyaare bàmmeel yeeg di ñaan ca bàmmeel yaag yu mel noonu yooyu yëpp nga xam ne ci ci bokkaale lañ koy dugal ñay ñëw di jéem a génnee nit ñi ca loola dañuy ñooñ dañuy woote ci tawxiid woote wuñ ci seen xalaati bopp woote ci benn madhab woote wuñ ci xalaati ibnu taymiya waaye dañuy woote ci tawxiid kon ñañuy woo di leen woo ci tawxiid ñooñu nekkuñu ca nekkuñu ca tawxiid nekkuñu ca tawxiid loolu ci naagu la bokk ci naagu la bokk ndax ñoom yàlla daf leen a musal ci bokkaale ak yépp ñun yàlla moom ñim ñim nattu bàyyi leen ak iblis iblis nattu leen ci bokkaale mooy mu tasaw yu fa yeeg ñii nga xam dañoo gëm ay sëriñ ak gëm ay kii ak yu mel noonu ñi yàlla xéewale tawxiit gu wér ñu sax ca nekk ca di ca woote mooy waa këram ak ñi nga xam ne ñoom la ñoom la yar leen taqsim mboobu ci naagu la tege wala ci xaqiqatan mbir yi noonu la demee est-ce que ñoom dañoo ëpp nit ñi tawxiid maanaam dañoo gën a am tawxiid ñen ñi ñuy jàpp ne ñoom la ñuy woo ñoom est-ce que ñoo leen ëpp tawxiid est-ce que gëm ne yaa leen ëpp tawaxit loolu bokku ci naagu gëm ne tamit dangaa aw ci yoon wi dangaa texe yow ñoom ñu texee di nga war leen a sauver ak yu mel noonu maanaam ñoom ibaadu boo gis boo gis ci naagu lay dox ndax ibaadu fu gisee ku dul ibaadu day jàpp ne moom moo la ëpp diine waxuma la jàpp ne moo la ëpp diine sax waaye day jàpp ne moom texe na ba pare dee moo ko tee dem àjjana waaye yow mutasawif bi dee moo la tee dem safara wala bokk nga tuub ci li nga nekk nii te ñëw bokk ci groupam bi mu bokk moom ibaad noonu lay doxee euh, masalan mën naa ci indi benn misaal rek man yàggul lool ci semaine bii rek man damay toog di werd euh, am sama xarit boo xam ne moom ci gaa yi la bokk ñëwee fekk may werd rek moom day fekk mu yor kaamilam moom itam di jàng alxuraan li mu def ci xel mi mooy man duma jànkatu alxuraan man ci werd yi ak bidaa yi gaa yi joxe di sikkar ak di kii ay adad ak taxdiid ak yooyu yooyu ci laa nekk moom moo nekk ci sunna c'est-à-dire moom yor kaamil mooy jàng alxuraan du jàng ay xisib nangam nangam man ma nekk ci beneen wàll gi loolu la def ci xelam yamul ci def ko ci xelam sax waaye daf koy génnee ci làmmiñam mu fekkee ma toog di werd moom mu toog di jàng alxuraan ba ci yàgg mu daal ne ah daa ti ree daal ne afdalu zikri qiraatul quraan ma yëngal rek bopp bopp daal di continuer la ma nekk moom li mu def te loolu mooy mooy aqliya wahaabiya yépp noonu lay doxee mooy fépp fuñ gis koo xam ne du bokkul ci seen groupe kooka moom diine matul moom waaw ñoom ñoo la ëpp tawxiin moom teg nañ ko ne la ñoo la ko ëpp Euh, ñoo la gën a sell ak ngëm-ngëm wàllum jaamu yàlla gii tamit ñoo la ko gën a kii ndax yow ci ay sikkar yi ngay nekk ñoom ci alxuraan lañ nekk waa ji bu yemee ci afdalul zikri qiraatul quraan li gën ci lu nit di werd mooy jàngu alxuraan kon <laughs> mi ngi may tooñ man mi ngi wax ak man man lay waxal léegi ma xam ne li mu gëm mooy gëm na ne man alxuraan moom ma ci dara ba ma loola soofee nag ma laaj ko yow da ngaa mokkal alxuraan wala déet mokkalu ko mokkalul alxuraan moom ñaata xisib ngay jàng par maanaam alxuraan eh, maam ñaar walla benn wala xasaba taq léeg-léeg sax mën naa toog du jàng alxuraan <laughs> ma ne ko man fi nga ma fekk nii wóoruma la ko woon a wax mais ñaar fukki xisib laay jàng ci suba teel gi ñetti fan yu nekk ma am benn kaamil waaw loolu nag bala ma ko def mooy bu ma xëyee suba loolu jarul may fotow saam bopp pour wax la pour wax la ko yow wala pour won la sama vidéo bu may jàng alxuraan damay jàng ñaar fukki xisibu alxuraan boole kook dog salaatul fatiha door a doxi sama yitte léegi nga fekk ma fi may werd nga def ma nit ko xamne dafa alko di sikar lo xamne bidala yow nga nek ci sunna su wir te yow mokolo alquran do jang ñaari xisib yo xamne yu wir le bis bu nek nga koy saxo bu la nexe nga jang bu la nexe nga bay jang yow ana yow yow yaay kan legi sunna si ngay wote ne ya ko gëna ki lutax njorto ci sa bop lu ñaaw njorto ci man lu rafet nga nga nga xal bu mbir mi ñom ñëpp nak no lay doxé xoolal ku fi guddal sikkim gàttal sa yére koo gis mu buubal sikkim mu buubal yéreem sax wala mu gàttal sikkim rek génnee nga ko ci sunna yow ci ci jëmmi ñaari mbir yooyu e, koo gis mu nga bu kurus di sikar yow def nga ko koo xam ne daanaka moom sunna moom neexu ko wala da koy xeex wala nangam ak nangam mel noonu te xasaman billahi alazimi ñoo leen gën a wér diine nit du naagu ci benn mbir yow mi nekk murit yow mi nekk tijaan yow mi nekk ibaadu jëmmi tur yooyu nga yor noonu taxulaa raw lenn moo lay tax a raw nga sax ci jaamu yàlla nga sax ci waxuñu nga koy tadaahur def fuñ la fekk nga yor sa kurus wala nga yor kaamil wala nga yor nangam nangam li ngay def bu ko kenn xam waaye foo toll del jaamu yàlla foo toll del jaamu yàlla fo tollu del jaamu yalla waye nak njortal ci nit ñepp lu bax njortal ci nit ñepp lu bax lolu moy mën haju yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci le ñepp wara dox nak nagu gogu mu japp ne ña ñi wax ñiko ko rek moy ñinga xamne ño ne nak kii nangam nonu la fesse del ci mom ak njabotam ak wa këram ak ñamu yar ak ñepp ñu mbokal ngëm-ngëm bi moo tax ñu gaaw ci diw génn ci diine ji moo tax ñu gaaw ci diw mubtadi la moo tax ñu gaaw ci diw mushrik la moo tax ñu gaaw ci diw nangam buñ ko deful eh, yaani takfiran muayyanan danañ ko danañ ko itlaaq waaw. noonu ngay su la mënalut loola nag nga xam ne borom tawxiid bu wér doon ab jaamukatu yàlla. bu sa xam-xam bariwut mu naxe la ci fexe ba la ngay jaamoo yàlla mu dugalal la ca nag yu ca bokkul fexe ba dugalal la ci man na la ko rafetale nu ne nag léeg-léeg nga dégg ñu la ne yi bokkul ci diine ji teñ dugal ko ci yu mel ne si carrière yëf yi fan yu mel noonu mag ñi ko defoon liñ ci jubluwoon mooy téye nit ñi ci diine ji téye gu demee nag ñu ne ah bu la joxee wérdu ne la charte yi mooy nga garde julli juróom garde njàpp garde koor koor yi ngàpp ngaag yooyu yëpp ne la mooy charte wérde wi kooku nee na fexe na ba téye la ci biir sharia waaye musiba ngoog fexe na ba téye la ci biir sharia ba noppi dolli ci sharia la loola nag ci li iblis bëgg ca fiir ya la bokk te dafa rafet lool nag cim xel dafa rafet lool cim xel ku yeex rek fiir googu moom da lay yóbbu la léegi nag foofu la lënt yi nekk moo di ne gëm-gëm bi mu bëgg a ci xelu ñi koy déglu ak ñi wax ji di yegg ci ñoom moo di ne gëm ne lépp loo fi gis muy werd ak muy sikkar su manti doon muy benn dara lu baax lu nit ñi di def ak di ko joxe loola dafa bokk ci tashriic mbir mu bees dafa bokk ci tashri dafa bokk ci tashri mbir yu bees yokk la ci diine ji wala yoonal la ci diine wala yu mel noonu su fekkee ne loola biddaa lay doon kon nañu yam tay rek ci biddaa yi nga xam ne ibnu taymiya moom moo ko wax joxe nay ñaan yoo xam ne ku ko def arbaina marra maanaam ñaan goo xam ne ku ko def ñeen fukki yoon loolu adat la loolu yoonal la ci diine benn moom mu gën a dégg ibnu taymiya diine ji te ibnu taymiya xamul ne adat boobu mu joxe noonu loola bidaa la xamul ne moom fiir ga jàpp na ko ba pare daf ne loolu boo ko defee arbaina marra loola wutal na ko am lim waaye ci fajar nga koy def wutal na ko waxtu wutal na ko waxtu e, loola nee na boo koy def sa xol ci ngëm yàlla lay dee wutal na ko ak pay ñett yii ibnu taymiya def amul benn boo xam ne mën ngaa génne xadiis bu ko wéral mën ngaa génne xadis boo xam ne dafa wéral loola loola benn la ñaareel kon moom ibnu taymiya moom ci ñi fiir ñi jàpp ca la bokk ibnul qayim itam ñi fiir ba jàpp ca la bokk fiiru iblis googu mu leen fiir nga xam ne dafa dañuy dugal ci diine ji loo xam ne bokk ci daf leen a jàpp ndax mooy nettali loolu <laughs> te nettali gi boo ci tegul ak weddi mooy gëm nga affaire bi te nettaliwul lool rek yam ci netti na yeneen yu gën a garaaw loolu ay mocc yoo xam ne ibnu taymiya moom moo ko wax moom moo ko wax wala bokk ay saafara yoo xam ne moo wax ne nañ koy bind walahu ma sakana fi leyli wa nahaar wa huwa samiul alim nee na loolu ku ku bëñam di metti dañ koy bind ci lex bi nga xam ne fala fala mettit ba nekk day wér ci saa si loolu du benn de ay yeneen la ci jox bori daf cee joxe ay ñaan yoo xam ne moom mooy lu yooyu yi may wax yëpp mënoo ko génne ci sunna de loolu yokk lay tudd ci diine comme ni ko Ahmed loo waxee kon ñooñu ci ñi fiir ba jàpp ca lañu bokk waaw ñi fiir ba jàpp ca lañu bokk eh, yemul ci loolu maanaam bismillahi farrat bismillahi xallat bismillahi kada yooyu day faj day day am ay feebar yu muy faj yooyu im tayme moo joxe ñaan yooyu boo demee ci zaadul maad lii ma wax da nga ko fekk fekk fa yeneen ar ruux libnul qayyim da nga fekk yeneen yu gën a garaaw yii ma la wax boo demee ci tarjamaatu ibnu taymiya yi moo xam euh, al alaamul aliya moo xam euh, uqudu durriya bumu ci manti doon da nga fa fekk yu bari ci yii ma wax nii yoo xam ne day tegtale ne ibnu taymiya fii rek da koo jàpp moom nitu bidaa la goo xam ne dafay dolli ci diine ji loo xam ne yàlla ak yonent ba yoonalu ko waaw yàlla ak yonent ba yoonalu ko kon nga xam ne moom mënul gëm ne Ibnu Taymiya mubtadi la moom mënul gëm ne Ibnu Taymiya mubtadi la ak yeneen yeneen problème bi mooy baatu bidaa ci boppam mu am problème dafa am déggin bu mu ci am am déggin boo xam ne ñeneen ñi am nañ ko ci moom dégginam nekk déggin bu xat ak ñeneen ñam ko bokkal waaye itam am ñeneen ñoo xam ne dañoo yaatal ci baatu bi daa euh, maanaam am luñ ca rafetlu am luñ ca ñaawlu am nuñ ko déggi bokkoon na ci insaaf nga mën a wax ne lii de ñi déggee mm, kullu bidaatin dalaala maanaam mafhuman dayiqan wala tadyiq ñu tadyiq mbir mi xatal ko ñooñu nii lañ koy dégg ak nii ak nii am ñoo xam ne dañ ko yaatal loolu mën nañ ci indi lu bare bare bari waaye loolu temps bi xaju fi waaw problème mu est-ce que loolu dafay tudd yoonal ci diine est-ce que loolu dafay tudd da yokk ci diine lu ci bokkul est-ce que loolu dafay tudd bidaa boo xam ne dees ko war a moytu te ku ko def da ngay am bàkkaar wala boog mën na laa yóbbu safara est-ce que loolu lañ ko tuddee foofu baax la foofu am gëstu la. est-ce que sikkar yi nga xam ne dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy def wala eh, xisib alxuraan yi nga xam ne dañ koy joxe masalan alxuraan ci boppam ñu misaale ko ci alxuraan alxuraan amul yonent yi fu mu waxee ne nangami saar lañ ci war a jàng pare bis su fekkee ne kenn nit dafa jël eh, fajar gu nekk su sëlmalee bala moo dépassé bala moo wëlbatiku ci fi mu toog mu jàng fa ñaari xisibi alxuraan fajar gu nekk loolu lay def ñaari xisb yooyu ab lim la waaye place bi mu koy defee waxtu la tamit ak place saxoo ko nag loola kenn mënuta wax ne waa ji li muy def nii bi daala ndax moom moo sartu loolu yonent bi salaa moo wax ne eh, li gën ci jëf yi mooy la ca gën a sax te dara mënul sax te amul lim waaw mënul sax te fekk amul lim mënoo wax ne Euh, euh, damay def ñaari rakka xëy suba defaat ñeenti rakka xëy suba defaat juróomi rakka loola du du du adwa muha de du adwa muha adwa muha bala moo am dangay wax ne ñaari rakka laay def bis bu nekk sax ci loola rek yow sa jëf moo gën a rëy fuuf fa yàlla jëfi ki nga xam ne léeg-léeg mu du julli fukk sax léeg mu julli téeméer léeg-léeg mu tëdd nelaw loolu beneen baxs la bu gudd gudd wàllum sikkar wàllum ñaanak wàllum yi ñuy yëf yëfaan yi mu tuddee yëf yëfaan sikkar yi sikkar yeeg yëf yëfaan yi nee na yooyu lañ yokk ci diine ji yooyu maanaam munaaxasa ja ci nan la ñuy déggee bidaa ak moom loolu dañ ci bind ba pare lool loolu liñ ci bind du jeex du xaaj maanaam mafhumul bidaa wa atharuhu eh, fi tiraabil fatawa al muasira jàpp naa ne bokk na ci téere yi gën a jox mawdu boobu àqam xamna nak mom du d'accord ak borom téré bi ci loolu ndax mom dégg-déggam ci bida da fay nek dégg-dégg boo xam ne euh bu xata xata xat lay doon motax diine du lo ci dolé rek bax na de diine la bax moy lañ ne bax na lañ ne bax na te ni la baxé fi itam la baxé ne bax na rek ci kat doyul kenn ku ne xam ne ne na laa ilaha illallah bax na astaghfirullah bax na subhanallah bax na waaye nag yooyu yëpp daa am nuñ koy waxe ak fuñ koy waxe su fekkee ne jekk nga ba mu neex la nga di ko waxee nu la neex ak fu la neex jël lim bu la neex nga jël ko boo xam ne jógewut ci sharia booba genn fiir ngoog ci fiiri iblis yi moo tax saxaaba yi amoon fiq Abdullah ibni Mas'ud la xewoon ci Kuufa euh, xam naa ne bala ñoo ñëw ci li xewoon ci Kuufa xam naa ne doy na lool lii mu wax nii nee na laa ilaha illallah ñëpp xam nañ lu baax la subhanallah lu baax la eh, ak yeneen ak yeneen waaye nee na yooyu yëpp dafa am eh, nu ñu koy defee ak fu ñu koy defee kon soo déggee waxam lim lay jox moo di ne maanaam subhanallah li muy baax baax fi nga ko war a def mooy xadis yi nga xam maanaam soo jullee ba pare nga def fanweer ak ñett ci subhanallah loolu kon wér na kon tegal ne foofu fuñ koy defee la ak nuñ koy defee léegi am na beneen xadis bu wax ne boo ko waxee téeméer ci diggante eh, suba gi ak ngoon gi léegi eh, subhanallah bi xam subhanallah azim da nga am nangam ak nangam ñaari xadis yooyu boo ci amul ñetteelub xadis subhanallah amul beneen waxtu boo ko war a def amul beneen lim boo ko war a boo ko war a num tuddati déedéet kon man awuma droit toog ci tàkkusaan gu nekk su ma jullee tàkkusaan bu pare ma def lu ma xam ci laa la illallah wala lu ma man ci laa ilaha la bu ma ko sax tënk naa bàyyi noonu waaye jëmmi rek def ko eh, ci beneen heure boo xam ne bokkut ak sax heure yi sharia wax loola ci boobaa day dugg ci biddaa comme ni mu ko déggee moom eh, léegi nag laaj bay samp foofu mooy nañ bàyyi subhanallah bàyyi laa ilaha bàyyi yooyu yëpp alquran ci boppam est-ce que am na fu ñu koy jànge ak nu ñu koy jànge est-ce que loolu am na su amee na indi xadis bi nga xam ne moo wax ne alquran de heure sàngam rek lañ koy jàng wala yonent dafa wax ne heure bu nekk mën nga ko jàng lislaam dafa tëral ne heure bu nekk mën nga ko jàng noonu nga xam ne mën ngaa jàng alquran heure bu nekk subhanallah yeeg laa ilaha illa mën nga ko wax heure bu nekk yow jullit bi xasaba sa kàttan fi mu toll man nga tànn itam heure ba nga am jot ndax moom mi ngi nii bidayatul mutafaqi mi ngi koy jàngale talaata ju nekk wu ci ne talaata dafa am benn fadila bu ci am wu ci ne talaata dafa am ngëneel gu am ci talaata gi moo tax mu dàkk talaata gi waaye talaata googu la ko mën a def du ko def ci beneen bis dafa am waxtu wu mu koy def tamit ci talaata gi waxtu woowu du changé moom foofu la ko am na keneen koo xam ne jaamu yàlla gi muy def nag heure sàngam la koy dàq waxul ne heure boobu dafa am fadila gu ci nekk dafa am ngëneel gu ci nekk waxul ne bis sàngam dafa am ngëneel gu ci nekk waaye bis sàngam googu xëy na ci la am jot wala ca la ko jekku di ko ca def teg ko foofu rek ca heure boobu rek ca lay sàbbaal yàlla subhanallah yu bari mën naa am commerçant la mën naa am boutique yi la mën naa am jàngalekat la mën naa am na heure bu am jot di ko fa def loolu sàkkal na ko aw waxtu man nako ko sakal lim waaye mu tok diko def rek alquran yi itam amna heure bu ko jekku lol sakal nako waxtu est ce que da fay dugg ci bidaa ci monté lol de bokut ak nako yonenti bi waxé nako yonenti bi da lim wax né da am nuñu koy défé ak fuñu koy mom. lol mom lam yantabiq ci li ñuy wax ni alquran ji ñuy wax ak sikkar si ñuy wax ci heure bi nga xamné mom la ko julit bi àttan diko def ak adat bam ci àttan def xam naa nag ñoom wàllum adat ak yooyu moom ay caaxaan lañ ko def xamuñ dara euh, moo tax daanaka dugg ak ñoom ci loolu dafay xaw a waar waaye daal am na même alxuraan jàng ko wàccee ko xatmu mu nga koy def am na secret yu ñu koy defee maanaam am na noo koy defee noo xam ne da nga ci am xéwal gu rëy rëy rëy waaye yooyu ku xamul ku xamul secret araf ak secret adat daanaka di wax moom loolu da nga mel ne ku taxaw ak chinois di ko làkk ay wolof yoo xam ne daanaka moom mosu fay ñëw mosu koo xam dafay lënt ci moom lool waaye euh, ñi nga xam ne xam nañ luy werd xam luy adat bi nga xam ne moom ngay jàpp di ko werd rek di ko nàngam nekkuñ ci caaxaan de ñoo ñoo gën a wér li ñuy def boo xamul la xamoo ko waaw ah, boo xamul malheureusement euh, wal insaanu daa iman dafay nekk aduwan li ma dafay nekk aduwan li ma jeex Abdullah ibn Mas'ud la xewoon ca Kuufa lu nit ñi war di nettali di ko dégluwaat bu baax la déglu ko du doy mukk fu jullit bi toll fu ne war na koy dégluwaat di ko muraajaawaat di ko xoolaat Abdullah ibn Mas'ud dafa toog ci këram booba saxaaba yi bareetuñ àndandoo yonente bi alayhi salaatu wasalaam jamono yooyu néew nañ ci kaw suuf am waa ji ñëw ci jàkka ji fekk leen ñu def ay géew géew bu ne am waaju ca taxaw kee nga naan wax leen subhanallah téeméer ñu nga naan subhanallah subhanallah subhanallah kee ne wax leen laa ilaha illallah téeméer kee ne wax leen allahu akbar téeméer ñenn ñu nekk nekk ci seenu bokk di mun mun ci jàkka ji kenn ci taalibi abdullah ibnu masoud ñëw taxaw di leen xool bam mu yàgg daal mbir mi jaaxal ko mu jóg daal di waaxu jubali kër Abdullah ibnu Mas'ud ku dëgëroon la comme saxaaba yëpp ne ko ya aba abdirahman adrik ummata muhammad yow abu abdirahman mooy Abdullah ibnu Mas'ud gaawal dab xeetu muhammad bala ñoo al ko question bu rëy ngi fi ay nit ñu ne laa ilaha illallah téeméer subhanallah téeméer allahu akbar téeméer ñooñu dañuy alku loolu mooy dégginu saxaaba yi dina gaawal ñi al alku mu ne ko lumu mu ne ko kaay xoolal sa bopp Abdullah ibn Mas'ud ci boppam jóg ñu taxaw di xool jàkka ji yi def bi mu ne eh, dégg kàddoom xam ni kii Abdullah ibn Mas'ud ñépp ne tekk jàkkaarloog moom di ko xool mu ne leen yéen a ngi may dégg yéen day benn yéen yéen a nekk ci njub muhammad ak ñim andalon ñom ñu dëng wala ñom ñoo jub yéen ngeen dëng ne loolu mu doon ne li ngeen di def yene ko ya aba abdurahman ma aradna illa al xayr nun lu baax rek lan ci jublu mu leen axu kay waye kam muridin lil khair lan yudrika bari aana kuy wut aw yiw ta do ci ag ndax jaaro ci yoon wa كم مريد للخير لن يدركه بتاجي لك بق أو يورك أجي ترى فام يون لأن لون ترى فام يون وخن مو في جم وجارو تيون ورا فا أج من لين يان صلى الله عليه وسلم بق دم بن في جوجي يا جعول يوم تكايم يم يران صح نيجي في بتي توجعون أنام ستلام جي يا فوغل أنام لام دون جابك لام دون سانغوك dàllam yam daan sol ak mbubboom yam doon sol lépp ngi fi dara xotti kooku ci maanaam yàggagul la leen bëgg a wax diggante bi ngeen bëgg fee soppi diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li leen su ngeen amee lu ngeen di lim dem leen ngeen limi seeni bàkkaar dem leen ngeen lim seeni bàkkaar waaye seeni jaamu yàlla yi ngeen di lim téeméer ci lii téeméer ci lee téeméer ci lee matu ko ndax yàlla lu baax lu sànku fa moom kon kooku lam leen di jàngal mooy néewut li ngeen di sikkar ci boppam laa ilaha illallah néewul bu ko kenn wax néewul bu kenn ne subhanallah néewul bu kenn ne allahu akbar waaye nañ xool nu ko yonente ba sallallahu alayhi wa sallam doon defe ngeen defe ko noona limul woon lim boo xam ne nangam lay doon lu dul ci néew defu ko woon ay géew yoo xam ne benn géew bu nekk la muy wax defu ko woon ci anam goo xam ne day yëkkati kàddoom ca kaw kon yooyu yëpp ñu yëg ne foofa la la Abdullah ibnu Mas'ud doon tere foofa la toll foofa la nekk waaye terewut ko tudd yàlla terewut ko def comme Omar. Euh, léegi nag xisab euh, Abdullah ibnu Mas'ud boobu ak waa Kuufa euh, ña nga xam ne fekkoon na leen ca jàkka ja ñu def ay mbolo di sikkar di tuddu yàlla man na xawma xeyna gisuma hadith bobu nga xamne da fay wax ne wax len nangam temir ay day wax rek ne wax len la ilaha illa kaza nangam yoon wax len alhamdulilah nangam yoon wax len kenan wax len nangam nangam yoon nangam yoon xeyna man na nek temir man na nek ñaar temir man na nek lenen wala bok mu am benen riwaya bo xamne daf nan wax len ko temir Eh, ala ayati xaal eh, maanaam xissa boobu am njàngat la am njàngat lay laaj eh, ak taxaw seetlu lay laaj waaye boo ko bëggee jël rek daat koy jëfandikoo ci outil bi nga xam ne wala boog def ko outil ci li nga xam ne moom nga bëgg a tere su boobaa dafay am problème jàngat bu njëkk bi wala boog taxaw seetlu bu njëkk bi mooy lan moom la eh, Abdullah Mas'ud di tere ci mbir mi maanaam lan lay tere mbooloo miñ def mm, moo taxoon mu koy tere wala taxdiit biñ taxdiit ne nangami yoon lañu war a wax subhanallah walla eh, heure biñ ko def wutal walla wala wala lan la lan la ci mbir mi lan lay tere ndax alquran dafay digle ñuy tudd yàlla lu bari dafa digal yonent bi itam mu ànd ak ñay tudd yàlla wasbir nafsaka maa alladina yaduuna rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala taadu aynaaka anhum turidu zinata alxayaati dunia yooyu nag maanaam aayaat yooyu nga xam ne dafay digle wàllum jaamu yàlla ak yu mel noonu yooyu boo demee ci tafaasir yi ibnu kathir ak qurtubi ak yeneen yeneen dana ci indi ay xadis yu baree baree bari ci ne yonentu saa salaam ahlu suffa jooju mu doon nekkalte ay nitu yàlla lañ saxaaba yi nga xam ne dañu nekkoon ci jàkka ji nekkoon ci seenum roq e, di jaamu yàlla ndax ñàkk lu ñu lu ñu liggéey lu ñu def e, tënku foofa rek te la leen fa téye mooy jaamu yàlla kese ay nit ñew ne yonent bi waroo toog ak ñi ñeenga ñeneen nga wara togal notable yaak nangam ak nangam yalla dati wacce aaye ne ko bañal bul toog ak yow muñal ci nek gi nga nek ak ñi ci hadith yi nga xamne mo nek ci tafasir yooyu dañuy wax ne yonent bi alayhi wasallam ci la ñew fekk leen ñuy tuddu yalla mu ñew and ak ñoom ba pare daan ne maa sant yàlla mi nga xam ne war na ma ci sama xeet ñoo xam ne war a wala dama war muñ ci toog gi may toog ak ñoom te boobu fuqaraa saxaaba yeeg ki yeeg ñoo fi nekkoon ak yu mel noonu maanaam dajaloo di sikkar wala dajaloo di jaamu yàlla wala dajaloo di di di tudd yàlla ak di ko bàkk ana fan bàyyil ibnu mas'ud bi bàyyil xisa bi nii ana fan ci diine lañ tere loolu beneen bi bu fekkee yonente bi daka daan def nan la ko yonente bi daan defee waaw ah, nan la ko yonente bi daan defee est ce que yonent bi dafa tere won ñu koy def mbolo manam yoyé nak ngay baxsu nak di dox di dem ak asar yi nga ci jëlé ci nga wara tek sa xalaat laaj ne ibnu masud lan motax muy tere mbir bi lan mo xew ci affaire bi bam tere ko bam ne nañ ko tere bam ne ni ngeen def ni du ni yéne ngi sos ci dina yu ci bokul mbolo miñ def la wala adat biñ ko wutal la wala est-ce que yonent bi dafa woon nañ ko wax subhanallah walhamdulilah fanweer ak ñett ñoom ñu def ko téeméer est-ce que loolu la est-ce que liñ ko def ay groupe ay groupe ci biir jàkka ji moo tax est-ce que lan la lan lan mooy maxal kii bi loolu benn mbir la beneen jaaxle bi ci topp mooy beneen jaaxle bi ci topp mooy nan lañuy ñuy remplacer loola ñuy def noona Ibnu Mas'ud comme li Ahmed loo wax daf ne leen jaamu yàlla gi ngeen nekkee wala bokk li ngeen nekkee di def subhanallah ci lii ca téeméer lii nangam nangam bàyyi leen ko dem leen ngeen compter seeni bàkkaar ngeen compter seeni bàkkaar léegi compter ay bàkkaar naka la ci nit di amee tiyaaba maanaam compter say bàkkaar ak naka naka lañ koy def naka lañ koy defee beneen bi fan la ñuy gisee ci xadis yu yonent bi foo xam ne dafay tegtale ne nañ compter ay bàkkaar est ce que compter bàkkaar ci xadis yu yonent bi la bokkoon ak yu mel noonu est ce que foofu mënuñoo wax ne Ibnu Mas'ud itam indi na loo xam ne amul woon ci diina ji ndax digal na ay nit ñuy compter seen i bàkkaar fan la yonent bi diglee ñuy compter ay bàkkaar yooyu yëpp ay maxal maanaam yu ñu war a seet beneen bi mu nekk xalaat yi kenn la ci saxaaba yi est-ce que loolu mooy siira saxaaba yëpp noonu lañ doon doxee Ibnu Mas'ud am na ay xalaat yu mu am yoo xam ne ba léegi ca loola la loola la faatoo te loola saxaaba yëpp ànduñu ci falaxeeg naasi gi nga jàppee ko alquran Ibnu Mas'ud dafa jàppoon ne ak ñaan la rek est-ce que dañ naan siira saxaaba yëpp noonu laak naa nangam maanaam loola kenn du ko nappee nit waaw diw bam mu fekkee lii après mu ne woon lii ñu ne lii nangam ak nangam eh, yooyu yu jara yu jara yu jara yu jara eh, seetlu la beneen bi jàngat bi mu ci def mooy jàngat bi mu am ci Me bi moom mais pas jàngat bi nga xam ne moom la borox wala boog jàngat bi nga xam ne moom la eh, ibnu ibnu masud ci boppam lam ca déggee ba tax mu aaye mbir ma moom lim wax mooy lim xalaat moom waye nak yii ma wax yépp ay xalaat la yo xamne ne na ci xalaat ci biir wax joju ñaarel ba ibnu masud nga ne mom dafa téré lolu ndax lolu yok la ci diiné ibnu masud mem mom ci boppam daf daan waraté waraté gogu daf ko jaglél ab bis muy bisub al-khamis té li tax mu def ko moy ngir baña yokkat lo bañ ko def bis bu nek nit ñi di yokkat même yonent bi salaa salaam daf daan waaraate waaye waaraate googu itam bañ ñuy daan yokkat moo tax daaw ko def saa su nekk waaye euh, wutalu ko woon waxtu moom yonent bi ak bis te nu Mas'ud daf ko wutal waxtu est-ce que wutal googu mu ko waxtu est-ce que fiir gi jàppul Ibnu Mas'ud moom kon léegi li mu def noonu ci fëhmu Ahmed Lo lan lay doon tax taxsiis ab bis nga jagleel ko waare lolou musul am ci yonenti bi ibnu abbas ci bopam nan waare yow aljuma ju nek aljuma ju nek léegi lolou umar mi nga xamne mom lay tuddu ni ne umar dafa ñewon fekk waju julli te bis heure sangam rek lay julli ci jakk jeeg nangam mu ñew dóor ko ne ko da ak sunna ibnu umar wala bok umar al-khattab momu radiyallahu anhum ajmain mom yitam nicmati nicmatil bidaatu haadihi waxam la joo xam ne moom moo ko wax est-ce que mu xaalafu sunna mu doon tegtal euh, mu doon wax ne waa ji moom la mu xaalafa suñu dégloo xalaati Ahmed Lo ci wax ji moo di ne li ibnu li li nga xam ne moom la Omar def tamit mooy boole nit ñi ci benn benn julli ñu nekk benn jamaa am benn imaam ci julli goo xam du farata ñu leen di jiite tuddee ko taraaweex léegi loolu amul ci xëdu yonent bi moom te nekkul bidaa moom ñëwut wuta wax ne loolu bidaa la ndax moom dafa gëm ne bidaa bu nekk bon na ñun dañuy wax ne bidaa la waaye bidaa bu baax a baax la waaye moom daf koy boole ci sunna te loolu amul fenn ci fu ko yonent bi waxee fu mu ko diglee yonent bi mosul wax ne ñëw leen ñu julli ñu naafile koor déedéet loolu yonent mus ko wax musul timit digal digle loolu même nit ñi biñ ko defee topp ci gannaaw dafa bàyyi kon yonent bi est ce que yani charaa dalika daf koo yoonal daf koo woote daf koo soññe daf koo nangam waxu ci dara yonent mos ko def beneen bi ci jamonoy umar abou bakr ni siddiq ba abou bakar di faatu loolu amul nit ñi booloowuñ mbooloo mi amul ku nekk koor bu jotee ku nekk dangay ngay julli say say la leen la nga man waaye dajale nit ñi ci jàkka ji ñu nekk benn mbooloo benn imaam di leen jiite ñuy julli nangami rakkaa bis bu nekk loolu Umar ibn Xattaab lay ju te loolu sunna lay tudd ci yow ñeme woo wax mukk ne bidaa la te amul fu mu am mën naa laa indil nag ci yi ngeen def yéen waa Arabie Saoudite comme foofu nga bokk ay biddaa yu dul jeex moom ay xatmal quraan ak achaul waliday neeg nekk yeneen ak yeneen usbuu kaza ak yeneen yu dul jeex yu bari léegi foofu moom du fa jëmale tuuma du fa jëmale kii moom li muy xeex ak li diineem ji nga xam ne jàpp na ne ci la war mooy saa su nekk muy ŋàññi ñi sikkar ak ñi koy tax diid ak dañoo nekk ci bidaa ak nangam ak nangam euh, te foofu des na ñu xam lan mooy bidaa ak ñoom yan bidaa lañu fi indi moom si moom tamit maanaam moom yan bidaa la indi ci dakaar yoo xam ne amul woon ci xëdu yonent bi abadan mais yooyu ci yeneen xalaqaat incha allah ca lañ koy leeral leeral biddaa ci boppam ak mbir yu mel noonu waaye ñu xam ne yii mu doon wax yépp du sax chara téere ba ndax téere ba moom ci ay affaire yeneen la doon wax affaire tawxiid ak yooyu moom moo ko dugal ci wàllu maanaam lim bëgg a wax Euh, def ci lëntal yi nga xam ne moom la moom la ci bëggoon def lii mooy mujjumalu liñ bëggoon a liñ bëggoon a wax doonte gàtt na wala gudd na ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax euh, xam naa yeneen i jotaay ñu gën a leeralaat yeneen i biir inchaa allahu taala wa axir daan alhamdulilah rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu